di ko jéggalu sunuy bàkkaar di ko ñaan mu musal ñu ci sunu ayu bakkan ak suñu jëf yu ñaaw di nangu ne képp ku yàlla gindi kenn mën koy sànq waaye képp ku mu seetaan ci màndum ba mu sànq kenn mën koy gindi ñu ngi seede amul ku ñuy jaamu ci dëgg ku dul moom waruñu koy bokkale kenn wala lenn di seede ne Muhammad jaamam la yonentam la yàlla subhaanahu wa taala woo ñi ko gëm ne ee yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla dëgg dëgg ragal sax leen ci loolu ba bu leen dee ñëwal lu dul fekk ngeen nekk jullit yu jébbal seen bopp yàlla yàlla subhaanahu wa taala ne ee yéen nit ñi na ngeen ragal seen borom bi leen bind ci benn bakkan mu bind ci bakkan boobu soxnaam si muy aadama xawa mu wesaare ci ñoom ñaar góor ñi bare ki jigéen na ngeen ragal yàlla mi ngeen di laajante ci aw turam na ngeen ko ragal ci mbokk gi dox seen diggante nangeen xam ne yàlla fu ngeen mën a toll mu ngi leen di fuug mu ngi leen di contrôler yàlla subhanahu wa mu ne e yéen ñi gëm na ngeen ragal seen borom te ngeen di wax wax di jub kon yàlla baaxalal leen seeni jëf jéggal leen seen bàkkaar képp ku topp yàlla ak yonentam kooka texe na texe gu mag gannaaw loolu mbokk yi lu gën a dëggu ci lu ñuy waxtaani moom mooy téere yàlla bi waaye njub gu gën ci lu ñuy roy ci aw doxalin mooy njubug muhammad sallallahu alayhi wa sallam li yées ci mbir yi mooy lu ñuy sos ndax lépp lu ñu sos bidaa la te bépp bidaa cànkute la te bépp cànkute safara la jëmee borom yal nañu ci yàlla musal gannaaw mbokk yi ñu ngi fas yéene bokk waxtaane benn tomb bu am solo ci dund doomu aadama ndax tomb la bu xam ni ci la dundub ñaari way dencante di sosoo te dundub ñaari way dencante yooya ci la doom aadama yi di soqeekoo bay jurante fii ci àdduna mu bokk ci tomb yi nga xam ne lislaam daf koo jàngale ndax lislaam amut lenn luy jur njëriñu doom aadama bi ci àddunaam wala alaxiraam lu dul ne jàngal na ko nu mu koy dunde tax na tomb bi suma ko doon jox tu dëgg-dëgg dama naan assunanu wal bidai fi lxitba dama koy tuddee lan mooy sunna ak lan mooy bidaa ci labat su ko defee loolu dafa am lu muy laaj ci man balaa ñuy wéy ci tomb yi mooy ne am na ay piliye yu fondamentaux yu xam ne baax nañu leeral ko balaa ñuy dugg ci biir waxtaan bi ñu xam ne baatu bida buñ ko waxee am na jubluwaay te leeral baat boobu la mu ëmb ci ay àtte danañu yombalal gannaaw gi ñu mën a xuus ci biir waxtaan wi ci ak ràññi ànd ak ne yonent bi sallallahu wa sallam daf ñu xamal ne bépp bidaa cànkute la kon baax na ñu leeral bidaa mii ma wax ne lan mooy sunna ak lan mooy bidaa ci labat ñu njëkk làmb tomb alif ne bidaa mooy lépp lu safaanoo ak sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam sunna soosu nga xam ne dafa séddale ko ci ay wax walla ay jëf wala ay pas-pas lépp lu safaanoo ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa ci ay wax walla ay jëf wala ay pas-pas loola biddaa la ñaareel ba mépp mbir mu xam ne ñu ngi koy jéem a jegeñee yàlla te fekk la yonent bi sallallahu alayhi wa tere woon na mbir mooma loola it biddaa lay tudd ñetteel ba mépp mbir mu xam ne mënuñ koo yoonalal jaam yi lu dul ci ab nas ci ab texte bu ñëw ci alquran wala sunna te loola amut nas booba amut loola kon biddaa lay doon ba mu des nag lu jógee ci kenn ci saxaaba yi ñu jàpp ne aw déggin la wu mu jëfee ci lenn ci jàngale yoon bi sallallahu alayhi wa daal fa ngeen déggee ni alif ba jiim daal mooy lépp lu ñu kole ci jaamu yàlla gi te fekkoon mu bokk ci aadaay yéeféer yi loola day dugg ci bidaa ha lépp lu xam ni lenn ci borom xam-xam yi dañoo yaxal ak sopp guñ ko sopp te loola amul dalil ci alquran walla sunna waaye rek ñu ñu ne lu baax la lu rafet la lu mën a jur tuyaaba la sopp ko rawatina surtout ñi mujj ñëw ci jamono yooya ñuy sopp te amul fu ñu koy sës ci njàngaleem yàlla ak njàngaleem yonent bi di ko diggaate ay tiyaabo loola itam di dugg ci biddaa waaw gépp jaamu bu xam ne defeewuñu ko lurut sukkandiku ci xadis bu wérul gépp jàmm gu xam ne defin wa sukkandeewu sukkandikoo wuñ ko lurut ci xadis bu wérul moo xam doya di rek wala xadis bu ñu sosal yonente bi sallallahu alayhi jaamu googa bi daal zaay ëppal limite bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon ci ak jaamu jaamu gu xam ne sax nag yonent moo ko jàngale waaye waa ji ëppal na cenam koy defee buñ ko dendalee ak na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon loola itam day nekk bida ha gépp jaamu gu xam ne sharia daf ko booyal tënkut ko nit ñi wala lenn ci nit ñi tënk ko tënk googa day nekk biddaa naka noonu gépp jàmm gu xam ne yoon bi saasam daf koo tënk lenn ci nit ñi boyal ko loola it day nekk biddaa moo xam ci wàllu jamono la wala ci wàllu melo la wala ci wàllu lim la kon teqantalug wax yii ñu tudd mbëmbës nañ ko danañ ko gis insha allah ci biir waxtaan wi nga xam ne moom la ñuy soobu nii euh, ñu njëkk a wax ne mbokk yi sëy mbir la mu xam ne yàlla subhanahu wa taala daf ko mooñaale ak doomu aadama dëppi ca njëlbeen ba mu bindee su ñaari waajur aadama xawa dëkkal leen ci aljana te tuddee ko jabar ne uskun wa zawjuka aljanna yaa aadama uskun anta wa zawjuka aljanna yow aadama yaag sa soxna dëkkaleen aljana kon baatu soxna boobu dafa leer ne mooy cosaan muy mbir mu xam ne itam yàlla subhanahu wa taala daf ko yoonal ci ñi mu tànn ci jaamam yi muy ay yonent allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas yàlla dafa tànn ci malaaka yi ay yonent mu tànn ci nit ñi ay yonent nit ñi mu tànn def leen ay yonent bokk na ca la mu wax ci ñoom mu ne wa jaalnaa lahum azwaajan wa zurriya defaloon naa leen ay soxna ak ay doom waaye sëy moomu yàlla subhaanahu wa taala yoonal te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaaxaate ci lool xemem loo ci lool ba wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukathirun bikum al umam yawma alqiyama takk leen ñu am cofeel ñu mën a am doom ñi ndaxte damay ëpplante ak yeneen yonent yi xeer ci yéen ñi sëy moomu yonent bi sallallahu alayhi wa tudd ñetti nit ñu xam ne yàlla warlu na ne dana leen dimbali yàllaa ko farataal ci kaw ne dana leen dimbali te yàlla dara waru ko coobare la ngëneelam la ñetti ñooña bokk na ca ki dugg cib sëy ngir yéeney fegu ci lu xaram ñaar ña ca des kenn ka mooy jaam bu xam ne dafa bindu ak sangam bëgg a jënd boppam gore keneen ka mooy ki génn fi sabilillah jihaad ngir yëkkati kàddu yàlla ma ne kon ki nga xam ne dafa bëgg a dugg cib sëy yéene mooy fegu ci lu xaraam yàlla subhanahu wa taala moo warlul boppam te dina ko dimbali te bu ngeen xoolee sëy moomu yàlla subhanahu wa yeggale na ko ci def ko mu nekk kiimaan ci ay kiimaan nekk kéemtaan ci ay kéemtaan yàlla subhanahu wa taala ne wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum aswajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkarun bokk na ci ay kéemtaanam mu defal leen ci seen bopp nit mi ngeen doon mu defal leen ci ay soxna yu xam ne da ngeen di dallu ci ñoom mu def seen diggante cofeel ak yërmande loolu kéemtaan la ci ñi nga xam ne dañuy xalaat sëy kon kéemtaan la ci kéemtaani yàlla yi santaane la ay ndigle la ci ndigle alquran ak sunna waxoon na sànq lenn ci li yonente bi sallallahu alayhi ca wàllu googa amma alquran kàddu gi ñëwee dafa gën a yaatu yàlla subhanahu wa taala wax ci suratu nuur mu ne wa ankihu l ayaama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم na ngeen sëyloo ñi amul sëy ci yéen ba mu naan ci yéen booba ay gor ak jaam dafa amoon baatu ci yéen bi ci yéen gor ñi ba mu ñëwee ci jaam yi mu ne ak ñi nga xam ne walaabal nañu ci sëy ci seen jaam yu góor yi ak seen jaam yu jigéen yi su fekkee dañoo néewle yàlla dana leen woomalal ci ngëneelam ndax yàlla ku yaatuy ngëneel la te ku xam la ña ko yeyoo yii mbokk yi dafay wane am solo ak sëy dafay wane fi alquran ak sunna yeggale doomu aadama yi ci sëy te moom dong muy jumtuwaay bi doomu aadama yi mën a yokkoo man cee sàmmee seen bopp ci bànneex bu xam ne bu xaram lay doon waaye ñu man caa am bànneex yàlla bindal leen ci tiyaabo muy bànneex bu dëgër sëy moomu nag la koy jiitu mooy labat lay jiitu sëy mooy labat labat kon dana baax ñu ne lan moo ciy sunna suñu ne lan mooy sunna ci labat day dal di ràññeekuwaale lan mooy biddaa ci labat kon lii sunna ci labat du ñu ne ci ponk yii la tëre waaye dañu naan ki bëgg soxna dafa war ci moom mu tànn jigéen ju baax tànn jigéen ju baax yonent bi sallallahu alayhi xamaloon nañu ne jigéen de benn ci ñeent yi mooy yóbbu nit ñi ci ñu leen di labat di leen takk am na ku xam ne taar baa tax ñu koy labat ngir takk ko am na ku xam ne alal jaa tax dafa bari alal moom lañ ko xamee di ko labat am na ku xam ne juddu baa tax maanaam dafa bokk ci euh, ni ko wolof yi waxee borom yax bu dijj su fekkee noonu am na waaye dafa bokk ci askan wu ñuy xemem ñu lawat ko ngir loola am ku xam ne ngir diinaam moo tax ñu koy labat diina ja la ñu xemem dañoo gis ci moom am diina ju tax ñu xemem ci moom yonent bi sallallahu ne boo bañee rëpp sa loxo ci suuf tànnal borom diina naam tànnal borom diina tekkiwut ne boo ca fekkee taar doo ko yóbbaale tekkiwut ne boo ca fekkee judd doo ko yóbbaale tekkiwut ne boo ca fekkee alal doo ko yóbbaale waaye sa jubluwaay bu mu nekk yooya sa jubluwaay bu mu nekk yooyu comme ni ko olof yi waxee ñu ne mën a togg ak fóot ak paase kenn du ko takkaale ci jabar waaye ku ko ca fekk bàyyi ko ci walla déet ñett yi itam jàppee ko noonu kon jigéen ju baax jooju jigéen ju am diina jooju moom ngay jublu ci moom pour labat ko waaye noo koy labatee yaa ngi koy labatee ci ay kilifaam su fekkee ne labat nga ko ci ay kilifaam ba dëppoo am ak déggoo am ca labat ga gannaaw loola du lu ko jiitu gannaaw loola dagal na léegi nga koy xool ngeen di bokk toog jataay ci lu dul wéetaay jataay bu xam ne koju armalu ndaw si daf koy fekkee càmmiñam baayam wala doomam su dee ko am doom wala nijaayam di bokk ak yaayam dee ak baay su ma ne càmmiñ nag càmmiñu lislaam laa wax waxuma càmmiñu wolof càmmiñu wolof mooy la léeg-léeg dañ naan la kii sama càmmiñ la nga ne ah, lu ngeen bokk mu ne bàyyam ak sama bàyyi ay xarit lañ woon wala kii sama càmmañ la lu ngeen bokk suñuy maam ñoo bokk fu ñu jógee ca kaw ga càmmeñ bi ñuy wax ci lislaam mooy càmmeñ bu xam ne dangeen bokk ñaari waajur yi wala benn ci ñaari waajur yi da ngeen bokk ndey ak baay walla ngeen bokk benn ci ñaar yooyu càmmeñ jooju moo koy fekk ca na ma koy gën a gàttalee képp ku xam ne mu sëy ak ndaw si daganut kooka kenn la ca ña mën a fekkee jataay booba ngir nga toog ak ndaw si ña nga xam ne nag sëy ak ndaw si daganut ci ñoom su ma continué woon di tëri nii mën naa yaatu ba fàtte loola waaye dama lay jox benn nattukaay booy def ci sa poos soo bëggatee xam sëy dagat na fa ak daganul fa rek jëlal nattukaay boobu nga natt ko mooy lan mooy képp ku xam ne buñ la nee loo bokk ak moom danga naan ñoo maa ak moom ñoo rek daganut maa ak moom ñoo bokk nangam wala maag baayam ñoo bokk nangam wala maag yaayam ñoo bokk nangam ndaw si lu ngeen bokk nga ne maag moom ñoo bokk baay ñoo bokk yaay wala maag yaayam ñoo bokk baay walla maag maamam ñoo bokk baay daganut su fekkee ka lay wéttaleeg ndaw si kooku la kon man ngeen toog waaye képp ku xam ne dafa ne dafa lay wéttaleeg ndaw si ngay labat nga ne ko lu ngeen bokk mu ne maag moom sunu sunu nangam yi ñoo bokk maa moom sunu yaay yee bokk ndey ak baay kooku mën naa takk ndaw sa kooku doyut ci wéttal maag baayam sunu baay yee bokk ndey ak baay kon saa yu ñu la ne sunu nangam kooka daganut mu nekk wéttal ci ndaw si nga xam ne labat nga ba déggoo am su ma nee labat nga ba déggoo am léegi dagan na nga toog ak moom ci ludul ngeen wéet waaye kojug armalam na ko fekkee wala jigéen ju xam ne mooy yaay ji ko jur na ko fekkee wala jigéen ju mbokkandey walla bàyyi na ko fekkee kon da nga lool ak wéet ak ndaw si ak waxtaan ak moom ci bëgg rekk kilifa yëgagut loolu nu muy amee su ma waxee li dangeen ngeen ci déggaale ne am na xeetu labertine bu am daj tey ci suñu réew mi lu dul ñu yàlla yërëm booba bidaa la ci lislaam lislaam xamul guléet la ci lislaam mooy lan ndaw si yéen a bokk nga gis ko foofa nga ko xamee waxtaan ak moom ba déggoo mu na la waaw léegi da ngay gis sama wala mu dem ne papa man de am na ku ma gisee ci eko ba ku may bëgganteeg wala na ci yoonu jàkka ja sax ngeen gisante bëggantee fa mu ñëw ne papa am na ku ma gisante ci yoonu jàkka ja ku may bëggante bii labatin bii tàmbali hinu labat du lislaam ma baamtuwaat dama ne labat ci sunna jigéen ju baax gi nga gis am yaakaar ci moom da dem ci kilifaam moom doo wax benn baat benn baat doo ko wax ak moom même boo demoon ci kilifaam kilifa gi li xew ci jamono yóbbuwaale ko ne ko sa doom diw sàngam de laa bëggoon jabar mu ne la ndax waxtaan ngeen ba juboo kilifa ga ca boppam xamul labat kilifa googu bu la waxee loolu yow jàngal ko labat ne ko ah man kat sañuma wax ak moom lu dul batama jaaree ci yow ba nga jox ma bunt ci ma wax ak moom kon labat kilifa lañ koy laaj sa diw sàngam mi laa bëggoon jabar benn ci ñetti mbir yi du manqué bi nga waxee loolu kilifa gi mu ne la waaw baax na man de bu dee man ak sama bopp rek awma ci lu may gàllankoor waaye nag aji dem ji fokk ma wax ak moom ba xam nu mel ci mbir mi su ko defee woo xale bi kaay nuyu gan gi mu ñëw nuyoo jàmmante mu dellu mu ne waa kon euh, man nga xaar ma ñëw dem wéet ak xale bi ne ko ah, kooku kat yaa ko yëkkati jawar la bëgg de jabar la bëgg de bu ko neexee it ne waa ji man ngaa dellu danaa waxtaan ak moom waa ji dellu mu waxtaan ak doomam kooku ma la doon nuyoole jabar la bëgg yaa ko yëkkati loo ci wax mu ne ah man ànd naa ci de su walla wax ja mën naa gën a yaru sax su fekkee bàyyi yow ànd nga ci di man ànd naa ci mu ne waaw baax na ñëw wax waa ji ne ko ah, soxna si de ànd na ci kon dëppoo am na wala dëppoo amul kër gi du am problème wala ñaareel ba dafa ñëw wax borom kër gi mu waxtaan doomam mu ne ko ah bàyyi de wax dëgg bëgguma laa gàntal waaye kii de moom wax dëgg doyoon ma ci jëkkër kii de xewi mooma ko te nga seetal ma keneen wala même bu ko waxu dooyu ma sax waaye bu ko waxee mu ne ko ah, nga seetal ma keneen rek gàntal na loolu itam góor gi day dellu siwaat mu ne ko ah man de bu doon man maay dem ama ci jafe-jafe waaye aji dem ji de gàntal na kon loolu itam leer na ndax xëccoo dana am ci kër gi tontu mooy déedéet ñetteelu xaala bi mooy ne waajur wi ci boppam moo parewut pour may la doomam bi nga ñëwee wax ak moom dafa naan laa fekk nga ci gàllankoor nag rek wax ji jeex gàllankooran ci wax na dëgg gàllankooram ci ñàkk daakooram moom mooy gàllankoor bi ndax ba tey kër gi danañ wuute amma su fekkee dañoo labataadi te ca école ba ca yoonu jàkk ja ca liggéeyukaay ba ba ñoom ñu déggoo weccante ay xol nga soog a sol sol sa daal ñëw ci kër waajuru ndaw si ne ko sa doom diw sàngam laa bëggaloon laa bëggoon jabar waajur wi gàntal lan mooy xew ñu taxawloo àdduna te dootu toog yow yaa créé fitna ci kër jàmbur parce que yaa joxante xol ak doomam ca te jëluloo ndigalul kilifteef gi jàkk fitna jooju mën na yegg ci ñoom ñaar ñu yegg ci wekkente xol fu xam ne dañu naan bu ñu leen mayee bu ñu leen mayeewu dootuñu bàyyante ba yëccee juddoo ngeen xam ko léeg-léeg am ñu xam ne daan leen yegg daan leen jaral yegg ñu ne nañ dem tribunal ñu mayee ñu wala nañ dem maire ñu mayee ñu te baay ji baay jaa dund ne jonn léeg-léeg mu yegg sax ci ñu ne nañu dem ci sëriñ diw sàngam mu mayee ñu nañu dem ci élimaan jàkk sànga mu maye ñu te waajur waa ngi dund lu ko waral yàqu-yàqu bi mu ngi amee ci labat bi lañu déparé woon fa mu waroon a déparé su labat bi déparé woon fa mu waroon déparé kon toog di waxtaan lu jot a am seen diggante lu jiitu déggoo waajur wi konoon weccante xol duñ am lu jiitu déggoog waajur wi amma li war a jiitu suñ ko mujjee fitna day am yéen ciy dégg yu bari la ca gën a metti yéen a ciy dégg ñaare ku ñu woo ku ñu askanee xam-xam ku ñu askanee daawa jëmale ci yàlla sax muy takk jabar ci fekk ne waaye jur ndeeg bàyyi ngi dund ànduñ ci te mbokk yi ay laaj yu bari danañu ñëwal waaw imaam loo xam ci góor gu xam ne dafa am ndaw suñ bëgganteel ba pare euh, baayam ne du ko ko may waaye tott bi yomb na baayam ne du ko may na ko fa bàyyi wuti keneen loolu laa ci xam parce que ndaw si am na droit bàyyi ñi ne ko diw daf laa bëgg mu gàntal wala amu ci droit waaw bàyyi ji moom amul droit ñu ne day diw ne damaa bëgg sa doom mu ne ko duma la ko may te responsabilité doom yi yépp nekk ci koo doom ji ba mu di liir ba tey muy yegg fu ñu ko xememee bàyyi bokku ko woon ak kenn bokku doon coono ba ak kenn tey ñu ne dañuy wañ loxoom nangu ko ci moom pour jox ko diw sàngam màndug lislaam romb na lool islaam fi muy foqartee kilifteef ci waajur mooy waajur ne ko duma la maye sëy ak ku la mën a bëgg yow du ma la mayee sëy ah foofu la ñuy wax ne tooñ na léegi tooñ na bu boobaa lislaam day toxal kilifteef bi jox ko keneen amma du ma la may diw waajur wu nekk am na euh, sañ-sañ kon jéego bu njëkk boobu ci labat te mooy fañ koy déparé tomb la bu jar ñu jàngaat ko mbokk yi yéen a bokk école yéen a liggéeyukaay yéen bokk jàkk bokk leen lu nekk waaye bu sa xel nekkee ci bëggu ko jabar bul wax ak moom benn baat jubalal ca waajuram loo jëlee ca waajur wa gannaaw gi nga mën a wéy ñaareelu tomb ci wàll googu mooy yow mii labat gannaaw bi dëppoo amee ngeen toog di waxtaan ngay waxtaan ak kilifaay ndaw si war nga leen leeralal sa mboolem situation yi aju ci wàllu matériel bi maanaam lan mooy sa métier sa tolluwaay ci mën a denc ci am am fu mu toll maanaam lépp lu aju ci luñ war a séq ëllëg ci digganteem ki muy labat loolu waru cenn bu dara war na koo leeral ndax bu dul loolu ak wor lay doon ak wor lay doon naka noonu itam nag ci tolluwaayam ci wàllu yaram wàllu jëmm da nga gis sama sikkim baa ngi weex tàll sama bopp baa ngi weex tàll ma bëgg labati ñuulal lépp ba ku ma gis yaakaar ne boroom ñeent fukkaat ñeent fukkaat ak juróom la su fekk romb na loolu di wéy ak wor la du ñu def ñaari fan ñetti fan semaine la ñuuloon yëpp commencé weexaat ñu ne ah ndeke ki fi ñëwoon nii la mel déedéet naka noonu ndaw si nga xam ne moom lañuy labat moom it jaaduhut mu tuwaaleetu tuwaaleetu bu génn aadaay na ko yàlla bindee naam ni ko yàlla bi ne mën na koo rafetal waaye nag def defin wu xam ne ak ndax ndaw la waaye melut noonu kooku itam ak woor la daw si ñuy labat kon na mooy tulool naka noonu yow miy labat sa situation familiale ñaari soxna nga amagum walla benn nga amagum wala ñett nga am war naa leer nu ngeen di dëkkee yaa kii nga nar takk war naa leer ba du am benn mbettu ci ëllëg nu ngeen di nekkee loolu ci tàmbali labat bi ngir ñu lay nangul wala ñu lay gàntal war naa feeñ ah léegi nag dëppoo am na waajur wi ànd na ci doom ji ànd na ci toog wax ci kanam koju almalu ndaw si mën naa nekk fii nag lay daldi am ay àtte yu aju ci labat googu ba ci jiitu xoolu dëggantaan ci diggante ku góor gi ak ku jigéen gannaaw dëppoo am na léegi xool xool guñ ci yublu nag mbokk yi ba tey nañu xam ne xoolu sharia xoolu sharia xool googu sunna la ay dalilam bari na bokk na ca xadisu jaabir ibnu abdillah radiallahu anhu ba mu ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na kenn ci yéen bu labatee jigéen man koo xool na ko xool na fexe xool ci ndaw si lu koy woo lu koy xememloo ci mu takk ko ëllëg su ma nee def loola na ko def jaabir mu ne ma labat benn jigéen ma daal làqu ci yoon wi muy jaar ma daal yoon wi muy jaar pour naa mën a gis ci moom lu ma xemem loo ci ma takk ko ba ma ko gisee laa ko daal di takk ah dégg nga li jaabir wax de mu ne dafa doon làqu pour mën a xool ndaw si ngir bu gisee lu ko xemem loo ci moom mu takk ko ba mu gisee mu xew mu takk ko ñun nag dañu naan labat na ko déggoo nañu ànd leen ngeen nay ji sa baaw jenn ànd leen ngeen nay ji sa tonton ànd ngeen nay ji nàngam ak nàngam yaa xil loolu fu ñu ko teg ci diine du noonu muy lislaam ñaareel ba xadiis abi xumayd mu ne yonent bi sallallahu alayhi nee na kenn ci yéen bu labatee jigéen aayut mu xool ko su fekkee daf koo xool ngir labat ko ngir bëgg ko takk même su fekkee ba mu koy xool ndaw si yëgu ko yonent bi ne même su fekkee fa mu koy xoolee ndaw si yëgu ko loolu moo ne roog li jaabir doon def ñaari xadis yi dañuy tegtale ne sarta wuñu ci xool gi kiy labat di xool ka muy labat ne fokk yëgoo am ca du ci sart même bu ko yëgut dagan na mu xool ko ndax daf koo xemem pour bëgg ko tëgg ñetteel bi xadis abu hurayra radiallahu anhu mu ne damaa toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay ñëw xabaare ko ne ko man de takk naa benn jigéen bu bokk ci waa ansaar yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ndax xool nga ko mu ne ko déedéet mu ne ko demal nga xool ko ndax waa ansaar kat léeg-léeg seen bët am na lu cay nekk seen bët am na lu cay nekk lenn ci borom xam-xam yi lañ ko firee mooy tuutaay léegi léeg dañuy tuuti bët yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko xool ko kat soog koo takk moo gën a dimbale pour seenum nekk mën a sax ëllëg xool ko gis ko soog koo takk moo gën a dimbale seen nekk mën a sax ëllëg yaakaar naa kon mbokk ba léegi gisaguñ fu sunna yeggee ci nañu ànd dem cafétéria wala nañ ànd dem nangam wala nañ ànd dem nangam déedéet ñu ngi wax ci kaadaru dagan na gis ko kaadaru dagan na toog moom wax te fekk du ngeen wéet fii la toll suñu mag yi réew mi amoon nañ ci yoon wu simple wu xam ne ya nga bëgg a xam yépp man nga koo xam te fekk ne wéetagu leen ndaw si man koo xam fekk wéetagu leen ba su déggoo amul mbir ma yem foofa nan lañ doon def gan day ñëw nuyoo ndaw si nga xam ne moom la waa ji bëgg moom la papa ji diwoo di mu ne kaay man kaay may gan gi ndox kaay may gan gi ndox mu indi potum ndox di mu ne naam kon xam nga ne nopp bi dara nekku ci walla déet ñëw nayoo may gan gi ndox mu naan ba pare mu ne ana kër gi naka mbokk ya kon xam nga ne dullu wala déet jàkkarloo nga moom kon nu mel xam nga ko dox na yegg si doxaat na dem buy soox xam nga bu sooxut xam nga kon essentiel yi nga doon soxla xam ci ndaw si dañee na fii la mbir mi tàmbale yow yaa bëgg ndaw si présenté nañ ko gan gi bëgg na kon xool tàmbali na waaye nag fii dañuy ñëw ci beneen tomb bu gën a xóot ci wàllu xool googu mooy kii labat dañu ne dagan na mu xool ki muy labat lan lay xool ci moom lan moo dagan mu xool ko ci ndaw si li feeñ ci waxi boroom xam-xam yi mooy lépp lu xam ne ci aada góor gi koñu armal ci jigéen daan na ko gis maanaam baayam daan na ko gis càmmiñam daan na ko gis loola dagan na kii labat gis ko bi maana kawaram kanamam ay loxoom ba ca cooñ ci ya lenn ci dënn bi wala lenn ci yeel yi loolu nga xam ne bu nekkee ci biir kër gi du ko sàng maanaam col yi waxuma ne dañ ko naan futteekul ba mel nii mu lay xoole noonu déedéet waaye dafa am col yu xam ne ci biir kër gi ci biir famille bi jigéen noonu lay solo bu bëggee génn ca biti wala kanam góori jàmbur ca lay sàng yaram wi yépp man a col gi muy soloo ci biir kër gi ci biir famille bi jàmbur raxul leen te léeg-léeg lenn ci dënn bi di feeñ loos wi feeñ loxo yi feeñ ba ca cooñ ci lenn ci yeel yi feeñ kawar gi feeñ loolu lu ñu aada wala ci biir kër gi kii labat bañ daakooral ko laa wax de waxuma kiñ daakooral agut kii labat bañ daakooral ko kooku dagan na mu xool ci ndaw si lii su nga defee nag mu am yenn masala yuñ ci génnee kuwaale weccentey photo ci jamonoy labat du dagan déedéet ay yàqute yu bari mën na cee juddu naka noonu la ma waxoon ci jéggi dayoo ci tuwaaleetin wu xam ne xam nga ne du bindari loolu nag waxuma ne ndaw si du diwoo euh, lu tooyal yaramam walla yu mel noonu yiñ baaxoo diwoo dara nekku ci waaye nag def yu xam ne xam nañ ne lii moom montage la loolu moom daganut na ma ko waxoon ci góor gi laa koy waxee ci jigéen ji waaye nag yi nga xam ne aada baaxoon na ko aayut lu mel na tus ngalu wàññiwul dara lu mel na rancé kana karawam ba mu jekk wàññiwul dara ndax loolu yëpp ci bind bi la bokk naka noonu du dagan muy wéet ak moom du dagan mu koy laal fokk njàppal du dagan mu wéet ak moom benn du dagan mu laal ndaw si du joxante loxo du beneen laal waxtaan wu seen diggante du am lu dul gannaaw pas-pas bi beneen tomb mooy su xoolee jigéen ngir xemem koo takk du dagan muy xooli ji keneen ah jigéen doomi jàmbur yi nga bëgg a def benn euh, bitig bu ñu installé ngay ñëw di ci xool pour tànn déedéet xool nga kenn am nga jubluwaayu takk yem fa ba takk ko wala labat nga yàqu nga soog a sañ xooli ji keneen waaye doone naa gaaral jigéen ñi sama kanam di di tànn mel na ku nekk ci foire di tànn la ngay jël déedéet juróomeel bi dafay dellu ci kilifa ndaw si moom it na xam ne moom kilifa ndaw si na xam ne moom itam daganut muy tere waa ji mu xool ndaw si nga xam ne moom lay labat ndax góor gi gis ndaw si balaa mooy nekk maslaha ci góor gi labat maslaha la ci ndaw si moom itam su ko defee benn ci ñaari mooy juddoo su fekkee waa ji xemem na ndaw si takk ko su fekkee xememut mu bàyyi ko lor bañ caa am euh, nga ne ma léegi nag euh, ki may labat moom euh, kilifaam nangu sax man ma gis ko waaye man daal magam ju daal li ma waxoon daal na sama xel ci ma takk ko waaye nag foog bëgg naa ko gis ci kilifaam nee na moom du ma bàyyi ma gis ko foofa dañu naan la dagan na yow nga def pexe ba gis ndaw si même su fekkee ne ci lu waajur wi yëgul la lu mu d'accordul la gannaaw sa jubluwaay mooy takk te am nga ci yaakaar bàyyi ji moom it jox na la accord ne la d'accord na ci may la waaye nag nga gis ko te mayuñ la ko loolu la bañ ma bu boobaa dagan na nga def pexe pour gis ko waaye ci sart yi ma wax nag na fekk ne d'accord na pour may la waaye nga gis ko te takkoo ko loolu la bañ foofa yow defal pexe nga gis ki ngay labal juróom-benneel bi gis gii ma wax ci kin dagan mooy labatkat bi nga xam ne yegg na ci xeme ma takk gannaaw biñ ko nangulee labat bi waaye ki xamagul danañ ko nangul duñ ko nangul kooku moom daganagul mu gis su fekkee nag benn bis la bëgg ñu gaaralandoo ko ay jigéen la ma ca waxoon lay wax loola lu wuute ak sharia loola du dagan ci moom mu des nag waa ji labat waaye ki muy labat am na ku ko doon labat ci tomb boppam la atteeb labat ci kaw labatu jàmbur mooy lan xatte boobu itam lu tax lislaam tëral ko atteb labat ci kaw labatu jàmbur mooy lu xaram la góor gi labat nee nañu ko d'accord nañu ci may la jabar kooka daganut keneen di fa demaat di labat yonent bi sallallahu wa sallam loolu la wax ci xadis bu albuxaari muslim solo mu ne jullit jullitay mbokkam daganut ci jullit muy jaay ci koow njaayu mbokk jullitam daganut ci jullit muy labat ci koow labatu mbokkam lu dul bata mbokk ma bàyyi jekk lan moo tax lislaam araamal ko li tax lislaam araamal ko mooy labatkat bu ñaareel bi dafa jalgati ci àqu labatkat bu njëkk bi dafa ko bëgg a lor ak xëccoo mën na caa juddoo bal lu leen xabtal ci biir nooneel sax mën na caa juddoo rawatina ñi nga xam ne damay njëkk a wax ne labat ci kaw labatu jàmbur manqué ak ragal yàlla mu nga ca waaye am na ñuy romb foofu am na ñuy romb ah kook dafa am dara bàyyi ko man dara defal nangam ak nangam ah kook xanaa xamoo ko ko mag la de waaye waajur yu nga wax ne moom la sa papa déggul